parce que li nga am sa bopp nga def doo ñaan kenn yaa ngi faj sa soxlay faj sa yeneen soxlay sew yëpp si kër bi waaw nekk sutura kenn du la xamal dara am nga ak amuloo kenn du ko xam waa yaa ngi liggéey waaw. jërëjëf ndaw si noonu xanaa di sant yàlla di gërëm suñu yaay compagnie bii nii mooy Xadi naka. Xadi Géey ah business ñu ngi si kanam ñu ngi jaay ndànka ndànka waaw business am na solo waaw ah, am na solo kay. di bu ma nekk lii moo dee dimbale suma yaay di jaay. ñoo amee kër gi ndig jigéen ñi léegi ñoom ñooy liggéey. Ah. ñooy daan seen doole waa na nama góori baalal ma. <laughs> kansilo loo wax. kansilo moom ma baalal ma la si boppam ma si kaddu boobu rek. Mm. waaw ak jigéen ñi ak góori gaame yëpp nañu baale ndig léegi fu mu nekk nii ñun jigéen ñi loolu la ñoo ndamoo. Mm. nañu ñoo yore suñ kër yi dinaam jaayam bi. Mm. boobu moom loolu moom foog ñu ndamoo ko léegi fi mu nekk nii. ndig buñ jaayee jëni jaay suñ lijum yi dajale ko dem tegee ko aussi su. jënal jënal jënal góor ñi ay mbasin yu riis yi sol leen ay waramba ah. noonu ñu génn a sanse buñ solee suñ takkaay mm. gii na mm. ñu ne jigéen yaa ngi xajaan xamu ne si jaayam yu sew yi la ñoo ca leen nekk ay koboy te tay bu ñoo jaay koboy jëni mm. jaayu liji mi ñu waxtu boobu ñu ngi tilim <laughs> ana góor yi fi nekkoon <laughs> gaa ngeen nelaw ñu ngeen nelaw ñoo fay school tey mm. school fees tey buñ ëpp a doole yëpp góor jigéen yaa koy fay ndig la na koy lan la ausus lii naka sax susu bi bu du toon ausus njaayam euh, euh, euh, ah, jëndam kër gi du du nee mm. su sujeer bi tegoo yëkka bi su baaxee mm. fan la si marché bi la eh, suñ ne développement ñu xayma ko soo ñëwee si agricultural sector Euh, boo ko seetlooyee gaadin lañ dee wax te gaadin soo ko seetlooyee ñeneen si dee gën a liggéey maanaam mooy jigéen ñi soo demee si fishing sector bi jënd njaay yëpp jigéen ñi la because man always su ma gisee gars ñu paak seen boppa si moto yooyu noonu di rigs di dem si géej bi suba teel fajar ñu ñëw isi ko loolu dafa nekk loo xam ne ni dafa ne li eh, maa ko rafetlu because tax ñuy def loolu maanaam mooy ne buggu ñoo toog rek di xaar seen jëkkër yi góor yi nag defe na li ah ñun tamit si lañ bokk si développement waaye at the same time xam nga di di fact is the fact waaw soo ko seetlooyee jigéen yi sacrifice yu ñoo def pour organiser seen boppa si ay ay susu yi nii ak yii nii yëpp pour dimbali seen boppa ak seen njaboot ndax ñun góor yi ñu ngey def loolu soo éene nañ pour jigéen yi wàllum jigéen yi sax moom bëgg nañ at least ñu improve seen livelihood because um, soo ko seetlooy am nañ ay compagnies yu bëri compagnie yooyu noonu ah, bëgg nañoo xam si lu luñ dee yëngu soo su fekkee ne ñoom dañoo bëgga pour ñuy abalante xaalis waaw di dinañ seet because loolu mu suma programme bi maa ngi seet naka laa ko doxalee pour at least even su nekkul lu takk waaye am di ko dama dee gis jigéen yoo xam ne sax naan yi la gars yi dee amee di ko jaay soo ku war a amee naan di ko jaay obviously kooku soo ko dimbalee certain amount of money war naa mun a dimbale boppam mu jox ko mu isi ko fay ko mu dimbalé moromam di ñaan nak yalla yagal ñu président bi fi dimbalé ñu ñun ñepp ndax ñu mëna pous Gambia mu dem ci kanam ak kanam comme ni président di wax vision 2020 nuñ ko mëna a activer ñu def collective responsibility wa mbokk yi ñoo seetaan daanaka li lañu waxtu meyon ah, si jamu ngeen fanaan programme bi ah, ma fi ñaari kilifa yoo xamne nak dañ no waxtane yépp mooy suñ wérgu yaram suñ jëmale réew kanam waaye nag à ah, développement dafa ne dama ne réew mi daal ñu ñoo ko mën a defaral suñu bopp kon nag ñu ne ku ragal sa gannaaw nga ragal sa biir suma caméraman nekkoon Keba kamara driver bi nekkoon oncle Jere ah, Ramatulaay Diallo woon ak di leen dig daje nag bi beneen bés waaye incha allah suma édito bi di Ibrahima Sirar si nee na ñu enu jàmm Música